Toujours dans votre acte du jour de ce lundi 23 octobre 2023 ginnaaw suñu jógee Juan Branco dañuy dem fële ca Bambilor ginnaaw loolu nag Bambilor gis nañ fa benn xeex boo xamante ni am na fa lu ko waral mooy coowal suuf muy benn conflit foncier boo xamante ni waa Mbey ñoo ko amal fan yi ñu génn yépp gis nañ ko foofu mi ngi métti trop suñu xoolee Mbey nag muy benn village boo xamante ni dafa nekk foofu ca commune Bambilor nekk ci wetu Rufisque muy benn théâtre boo xamante ni benn conflit foncier moo fa am bi nga xamante ni mi ngi menacé survie ñi nga xamante ni mooy ñëw dëkk ci localité boobu muy benn village boo xamante ni village historique la bu riche ni raconté ko ci plusieurs décennies boo xamante ni ginnaaw ko rencontré ci plusieurs décennies mi doon ci histoire aujourd'hui bo xamante dafa nek ci danger bo Louis louy danger lu waral raison danger Bobu moy accaparement bi nga xamante présumé souf yooyu nga xamante ñom ñoko mom par nga xamante moy Serigne di ben souf bo xamanteni de dafa fertile gaay yi doon fa bay nek fofu ca bay mom mo donon essentiel ben subsistance bo xamante population locale bi principalement si la ñu won lepp lo xamanteni jëm na ci sen walu agriculture. ba tey suñu ko ci xex bobu am fa muy mbay di ben village bo xamanteni histoire am dafa remonté wu jëm ci environ

muy ay euh, Pierre angulaire yoo xamante ni économie locale bi dina woon permettre population bi ñu prospérer wu pendant cette génération muy situation actuelle boo xamante ni foofu ca mbay principalement suñ ko lié ak ki nga xamante ni mooy Serigne Souhaïbou Seck bi ñu accusé moom moo accaparé lu toll ci 21 hectares de terre muy benn appropriation boo xamante ni dafa engendré benn menace imminente jëm ci wàllu démolition ay euh, toolu jaamur yoo xamante ni ak ay bâtiments yoo xamante ni dafa appantir ñi nga xamanteni moy habitants yi fa dëkk muy ay suufu agricole yo xam suñ ko convoité dina doon lo xamanteni ben enjeu central lay doon pour population locale bi ñi nga xamanteni sen moyen de subsistance gravement mom lañu menacer menacé ba tey suñu jàkkaarloog menace yooyu nga xamante ni dina indi benn perte ci seen terre ñii nga xamante ni ñoo dëkk foofu ca village boobu di mbay nekk ca Bambilor ñi ngi mobiliser wu pour organiser wu jëm ci ay manifestations yu violentes pour exprimer seen détermination dama bëgg ñi seetaani vidéo bi dellu si waat ndax euh, mbéy boo seetee ni mu toll fi mu toll ñaari néeg moo fi jëkk ginnaaw bi ñu ko sëncaatee mooy maam Makan mi nga xam ne bii moo fi dikk ak ak i rakam ak euh, famille bi nga xam ne bii mooy njóobeen Mor Ngom ñaari néeg la woon mais nag dëkk day màgg ndax booba <laughs> ñaari néeg bu demee ba xam ne bii ñu ngi yokk na mat na cent hectares fi mu nekk kon xam nga ne yokk na mais ci wàllu Euh, ci ci wàllu dëkkuwaay bi ah nekkul loo xam ne dañuy limité dangay ngay bokk ci famille bi boo dikkee wala nga jógee feneen ñu baaxe la daggal la kër booba lii am amuloon kon dëkkuwaay bi noonu la demee di yokk bu ñu agsi fii. ci atub 2023 bi diggante fukki fan ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre askan wi ñoo doon jàmmarloo ngir tere Serigne bu sekk ñëw jël seen suuf. ginnaaw ñaari fan yi passé nga xam ne bii mooy ba tey gendarme ñu ngi ci zone bi la jiitoo jiitoon dañoo jëkkoon ñëw ne suñu zone bu sekk vingt deux euh, neuf hectares la ñu déclaré gendarmerie ne def ko fee am suñu zone bu sekk léegi neuf hectares yooyu moom la ñu indi benn droit réel jox ko gendarmerie léegi bi ñu dikkee bëgg euh, terrain bi léegi bañ ma waxee dama leen. boo demee ñu ngeen yebal ñu leen yebal nee leen ko nan dal ba ñu waxtaan léegi man maa déplacé dem ba ci brigade bi fekk moom ku bees la ma xamal ko mais ñu ne ñu amu leen kayit te kayit yi ñuy wax man bi ma bi ma vérifié fu ma jaar fépp ci impôt domaine dañ ma wax ne lii ay faux la ma ne leen kayit nga xam ne moom la ñuy wax yéen ni ma man def ba lijjanti ba xam faux la wala leen yéen te ngeen toog seen taabal. maanaam maanaam li ñu ti loolu te du ngeen déplacé kon loolu bi ñu faroot ne ak euh, xale yi man ñu tuumaal ma maak asar bay ñu ne biir bi fi nekkoon ñun ñoo ko ñoo ko taal ñoo ko saccagé tey euh, bi ñu am bi ñu fronté man maa ngi toog sous préfet fekkewu ma Assane Bay mi fekkewu ko mais bi ñu yëgee affaire bi ma toog préfet de moom mujj ne ma léegi demal nga arrêté waa dëkk bi ma arrêté gendarmerie ma jël rapidement oto dikk fekk baare xale yi dem wax ak commandant bi ñoom tam ñu am digal ñu bàyyi PV boobu nga xam ne moom la ñu defoon ni tuumaal ma ci PV bi mu ngi woon ci gendarmerie terminal la jóge woon ñun ñu ngi toog di diglu terminal ba xam dañu woo ak léegi mais woowuñu numéro PV baa ngi nii dañ la ko jox léegi tey nag bii bi ñu delsee bi ñuy ñëw tàgguñu kenn ndax descos bi nga xam ne moom la moom la ñu yebal mu ñëw jiite gendarmerie yi fi nekk yi nga xam ñoo wàccati moo njëkk wàcc ci terre bi xamal ma ne fi mu nekk dafa bëgg ñëw limité ma ne ko looy limité mu ne teen ma ne ko sëñ sooy bu sekk amagu ñun mënaguñoo na ko benn mètre boo xam ne bi wax ko maanaam fi ma jaar mu ne léegi damaa bëgg yow nga indi li nga am ci données yëpp ak fi nga jaar nga wax ma ko mu jël délégation quatre euh, trois personnes ak man ñu dem taxaw moom dossier yëpp ma teg ko ci taabalam ak décret bi nga xam ne bii préfet moo ko moo bi ñu euh, dajee gendarmerie préfet moo ko def mu ne ma ah lii de fi bu ma demoon ba xam ne intervenir naa naa juum ndax décret euh, préfet boo xasee am loolu dama ci war a si wóor rafetlu suñu kàddu ak fi nga xam ne dossier yëpp dama jox naa ko moom na mu ne kon léegi day bind yi nga xam ne ay supérieur dem bi mu ñëw ci terrain bi dem naa ba ci moom wax ko loolu mu ne ma nag yow ñëw ma xam naa loolu la ma la waxoon def naa ko bind naa samay supérieur mais nag ñoo ma fi yebalaat léegi demal nga seeti autorités yi ci laa dem euh, sous préfecture ba ma demee fekk ma fa préfet fekk fa sous préfet te damaa jëkk woote mënu maa jot kenn ma woo préfet te ngeen jotuma ko ma woo sañam jot ko mu ne ma après dina ma wowaat mais woowaatuma ndax man naka jekk man lu man di am ci jàmm laay dox te ci laay ñaan dëkk bi ñu dox ci kon lii bu ngi xewee ñoom bu ñu delsee nag ak seen doole maasee la tool yi dëkk yi comme ne la waxoon ñaari néeg la woon te fi mu ne boo ko def mata saa hectare loo xam ne lëkk même bokkul ci sa 15 yi mu bokk ci extension village bi nga xam ne fii dëkk di village bi fu mu war a yokkoo ba am ñoo xam ne jox na leen fa ñu commencé dëkk bay euh, defee ay ñii defee ay fondation ñu dikk lépp boole ko maasale ko ak tool yi loolu ñu koy ñaawlu fu ñaawlu yem kon ñoo seetaanandoo vidéo boobu gi nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoo dëkkee foofa ca mbay di benn village bu nekk foofa ca Bambilor ginnaaw menace bi nga xamante ni war na leen ñàkkaloo seen terre ñi di population boobu dëkk foofa ca mbay ñi ngi mobiliser wu pour organiser ay manifestations yu violente pour exprimer seen détermination empêcher ki nga xamante ni mooy démolition maanaam yàq seen suuf yi nga xamante ni mooy seen mbayukaay ak bâtiment yi nga xamante ni yeneen nit ñoo ko moom luñ ci mën a conduire daal ay affrontement yu tendu lay doon entre manifestation yi ak force de l'ordre yi yi nga xamante ni suñu réagiré ñi ngi lancé ay grenades lacrymogènes djem ci disperser li nga xamanteni moy mooy foule boobu doon manifester suñu xolé nak ay jeunes yu bari arrêté nañ len ci kuuru événement yoy ñen ñu aussi saccagé nañu conseil municipal bi ak conseil communal bi Bambilor ginnaw bi ñu signé sen prestation kii di Serigne Soyibou Seck nak di principal concerné conflit bobu muy foncier bo xamanteni affirmer nañ ko ak ben force d'acquisition bo xamanteni suñu xolé ci ay suuf la depuis atum 2016 mu doon noonu loo xamante ni dafa légal nous présentons le titre foncier numéro 1975 de Rufisque que appartenir à nga du Sénégal pour confirmer que le propriétaire bi ak parcelle bi de 22 hectares yo a 83 sanitaire yoo yo xamanteni ci Bambilor la nek ba nopi dal di souligner que fayoon na lu tollu ci 200 millions de francs CFA ak Ben impense bo xamanteni lié na pour mu acquérir loolu nga xamanteni moy souf yoy di vingt hectares batay suñu sukkandikoo ci direction de surveillance de contrôle des domaines muy DESCOS mi ngi confirmer li nga xamanteni moy validité droit ki nga xamanteni moy propriétaire bi di Serigne Saliou.

ginnaw loolu nak gis nañu conflit foncier bobu bi mu génnaaw loolu dafa semblé wu ben véritable scandale bo xamanteni dafa commencer jager li nga xamanteni moy population mbay ginnaw kiko diriger di Hassan Bey manam mom moy accusé ki di Serigne Souaïbou sek mu accaparé li nga xamanteni moy mooy illégalement ay touf yo xamanteni mi ñom ñoko mom légalement muy ay citoyens sénégalais suñu xolé ci sen côté ki nga xamanteni moy mooy Serigne Souaïbou sek dafa prétendre que ki di Hassan Bey ak ay ñenn ci nek ci ginnaawam dañu bëgg frauduleusement jaay suuf yooyu ci li nga xamante ni mooy ay parcelles yoo xamante ni mi ngi appartenir ñeneen muy benn affaire boo xamante affaire bu complexe la ñi ngi révélé ay enjeux fonciers yu profonde yoo xamante ni mën nañu souligner tey benn importance enquête boo xamante approfondir nañ pour établir la vérité et résoudre le contentieux. ba tey suñu sukkandikoo ci événement yi nga xamante ni am na foofu kii di maire Bambilor di Ndiagne Diop moom aussi tardewul pour réagir ginnaaw loolu mi ngi condamné fermement li nga xamante ni mooy arrestation jeune yooyu nga xamante ni ñi nga dekk ca béy mi ngi instantanément l'État pour m'annuler annuler immédiatement sans délai li nga xamante ni mooy beau portant titre foncier 1975 boobu nga xamante ni maire bi ne devant le public que mon impliqué wu ci de près ni de loin affaire foncière la boo xamante ni mi ngi opposé wu population mbay ak ki nga xamante promoteur ba di sec bataille ba mi affirmé d'al amul ben yoon loo xamante ni jaay ci terrain boo xamante kenen keneen moom moo en tout cas muy tension boo xamante celle où nañ ko fan yi ca Bambilor lu ko indi nag une suuf boo xamante ni octroyé promoteur Bobu di Sohibou sec lu tollu ci 23 22 hectares yo xamanteni jox nañ ko tay nak population bi dekk fofu nenañu toll tool ñom ñoko mom ñom ñoko ñoom ci lañ doon bay ci lañuy dundé sen économie si lay suqalikoo ba nopi ay kër yo xamanteni ay jaamuro ko mom ñu bëgg ko ci bolé pour jël ko jox ko ben promoteur. donc mu indi ben manifestation bu violente fofu ci biir lan mo waral manifestation bi question nak la bëgg ñu poser fofu dafa melni rébellion bu MFDC bi mom mo dugg ci bir Bambilor ginnaw bu mu jógee Casamance lu waral ma wax la mouvement force démocratique Casamance bu MFDC bi ñom ñoo dugg ci ci biir ciow lolu pour indi manifestation yi saccager de bi pour gën ko yàq ginnaw bi nga xamanteni depuis que jeudi 12 octobre bi ñu amee procès d'instance euh, euh, tribunal Ziguinchor bu Ousmane Sonko gis nañu rébellion bi ni ñu yéwo ginnaw bi ñu xëyee gis attaque bi am entre armée sénégalaise ak rébellion bi fofu ci Bignona Li nak di ben cas bo xamanteni suñu delloo huit ans ci ginnaw Durant ñetti atti nous ginnaaw signé un pacte de paix pour déposer les armes ak rebelles yi doon xeex Casamance bi ñu signé pacte de paix bobu, lu toll ci 500 cent juróomi téeméeru rebelle accepté signé pacte de paix bobu, ñu déposer les armes signature de convention bi ñu ngi une préfecture de ci préfecture Bignona xool leen seen archive bu baax il y a 8 ans durant cette at ci ginnaaw ku ci nekk millions de dollars ci 15 millions yooyu bañ la ko joxee ku ci nekk déposé armam né ne ñu xex ci biir Casamance ñu gis jamm dellu si mais nañu jàpp ni que ci 500 yooyu 300 yi rebelles yi fii ci Bambilor lañ leen indi ñu dëkk foofu 200 yi ñu yóbbu leen ci Tata Tataguine kon ci 300 yu nek ci biir Bambilor nañu xol naka lañu ñu impliqué woo ci biir manifestation yooyu ba tay li am en tout cas muy benn cas boo xamante ni ci def très attention ñu gëstu ko ki doonoon seen président jamono jooju mi ngi tudd Atip Atib Atap Atib Atap Atab c'est Atab Niassi si boppam moo président madame rebelle yooyu nga xamante signé woon nañu acte de paix bi ku ci 15 ñu jox la millions pour que nga déposer say armes ñu avons ko une signature ba préfecture Bignona ginnaaw loolu ñoom 300 yi la indi fofu ca Bambilor 200 yi ñu Tatagin. leen Tataguine ci 300 yooyu nekkoon fofu. fondé nañ fa famille. am nañ fa ay doom donc ba tey ci mouvement force démocratique di Casamance bi ñooñu nañu xool ci biir manifestation yi lan la ñu undu ak lan lañ fa bëgg en tout cas mooy li ma lay wax gis nga xeex MFDC bi dañ ko jëlee léegi Casamance bëgg ko indi fii ci biir Ndakaaru ni ko Ousmane Sonko créé woon parti Pastef bii nga xamante ni du woon parti politique parti boo xamante ay terroristes ñom ñoo ci làqoon ay mouvement MFDC ñom ñoo ci làqoon mais comme ñu gagner combat bi par les armes dina xara ñu jaar ko ci politique. nak jaar la nañ ko ci lan ci xeexu litige foncier fofu ci bir Bambilor pour xol nak la jax sé dëkk bi nak la indi ay manifestations ay infiltré dugg ci ba tay mëna indi ay musiba ci bir en tout cas muy information bo xamanteni ni gëstul nañ leen ko muy question nak bi ñu samp laaj ko comment se fait-il que nous, ñu signé ba paré tay ci les information yi ak rendre compte que 300 rebelles yi Nous nañu xol ndax seen loxo mi ngi ci wala nekkul ci question du jour sur VIP People TV